lii xaaj ndox mi jëm nii ñoom ñu ngi koy wooye le continent muy forêt boo xam ni bu du woon yoon fi dagg moom kenn amut foo koy jaar lii féete ci suñ ginnaaw moom lañ tuddee bana waaw bana léegi nag fii ñuy jox li ko won ginnaaw dafa am genn dex gu fi nekk goo xam ne dafa am nit ku ñu tuddee woon ngaaka ci Congo la ba woon ñëw fii ci Gabon ay sëtam a ngi fii nii ci dëkk bi kooku sax jamono ñuy weesu man daa mën naa toll ci at wala wala yooyu dañoo gisante mu ni ma moom daa am lu mu yor ci xam-xam bu bawoo ci mbirum sëñ Tuubaa te mu doon wër ku bokk ci mbirum sëñ Tuubaa ku mu ci mën a waxtaana waaye moom nee na sëñ bi nekkoon na fii ci église bi waaye lu dëppoo ak jamono yi nga xam sëñ bi daan réer duñ xam fu ne nee na maamam la doon nekkal fii ci dex gu nekk fii ñoom nag maamam yooyee maanaam ñoom ku ci faatu ci biir géej gi ca suufu ndettu géej ga fa lañ am ab dëkk bu fa nekk boo xam ni euh, booy faatu daal foofa ngay dem dugg fa mooy doon sa bàmmeel ab dëkk la waaw nee na nag sëñ tubaa ak maamam ànd nañ foofee ci ci ci biir ci ndettu géej fii la nekk ci maanaam fii ñu jox rek féete nii maanaam bi ñu dëkk ba jublu caméra bi bi ñuy dëkk bay jublu ci leen ab ab ab ab croix am na lu mel ni mbedd mu jàdd noonu ci ginnaaw église bi foofa soo la tudd am na ñu fay dund nde ndox ma mi fa nekk nag ñu ko foofu ñu ngi ko tuddee il nga il ngaaka waaw ngaaka mooy maam yi kooku kii may wax ni ab expert comptable ma ngi ma ngi dund libre fii waaye Euh, maanaam fii nii dëkk bu bari ay mystère la dëkk la boo xam ni maanaam ñoom seen bopp sax nee nañ du dëkku nit waaye dëkku jinne la maanaam boo jax soonoog ñoom bay wax ak ñoom nee nañ léeg-léeg benn jëmu doomu adama dina réer définitivement kenn dootu gis ci lu bokk ci moom nee di nga gis kuy dox ba jaag mu wàcc kaw li noo ko mbedd rek ba ba àddina tukk kenn dootu ko gisati bu ko defee kon mel na ni xaj na ñun xam nañ wetug ni sëñ bi tukki na fi waaye dëgg dëgg li indi sëñ Tuubaa fii loolu moom yaakaaruma <laughs> yaakaar mooy xam nañ ko waaw kon nag xam naa ñëw gi fii ak di fi dikk maanaam nag mën naa am euh, mën naa dekk mën naa am yu mu dekkal wala mu am man wala mu am yeneen i njariñ yu mu ñu feeñalal xam naa ni euh, jàpp ma ni sax sababu lii tax ñun ñi ñëw mën a ñëw fii sax ak lii tax lii fi di xew sax mën nañ koo xam xaj na dañuy dañuy yaakaar ne bari nañ man man waaye bari nañu lijjanti waaye ñu tabaxoon eglise bi te dëppale ko ak ma sëñ Touba di sañ sañ ci Touba muy 1888 ak nii ñu xëy xëy gental ko tëj ko ba ñemeetuñ feeñu lu muy te bâtiment bi li ko woon ginnaaw lépp ma koy baamu ni ay batiment yu bare fi ne woon ba sas ca boor dex ga léegi ñoom batiment yi di lakk benn par benn te ñoom dem nañ ba xam ne bâtiment yi doon lakk jinee na ci barab bi ñoo ko lakk ñoom seen bopp dem nañ it bay gëstu lan la sëñ maanaam wax ci mbind lu jëm ci diggante ak Guinée ngi xam nekk noonu kook ñoom fii kon daal xam naa ni eh, xam naa ni xam naa ku bëgg a gëstu Sëñ Tuubaa daal yaakaar naa ni am mën ngaa gëstu genn wet gi waaye wet googu tamit wet wet gu xóota nga ca ndax commandant Cousteau ci biir waxam yooyu nee nañ bi mu plongé ci biir ndoxum Gabon laata moo génn moom xam na kañ lay dee xam na ñaata fan ko fi dese waaw waaw bu ko defee nag kon ñoo ñoom xam nañ ko waaye daal euh, li mu wax lépp def nañ ko fi dafa am ay coutume yoo xam ni maanaam ay dundi nit ñuy dund ñoo xam ni léeg-léeg su suñ demee ba nga xam ne samedi dafa ñëw ak dimanche nga xam liggéeyatuñ ci biir dëkk bi dañuy génn dëkk bi ñoom dugg ci biir àll bi sëñ maama am na ñoo xam ne dañuy génn bu samedi jote dugg ci biir àll bi dem ci dex yi nii nii waaye dañ fay toog di wax seeni baat ba rab yi nekk ci àll bi maanaam ñoom seen bopp dafa am ñenn ñoo xam ne ay segg lañ ñii doon maanaam ñoom daal seen population bu jaxasoo lañ te lu yéeme fi am man mii dama amoon soxna si Gabon soo xam ne ab commandant de douane la woon bokk nañ ñi nga xam ne bu fi jotoon dañuy génn ci àll bi day dem ba di la wax ne la suñ demee ci tefes ndox yi ñoom rab sàngam la ñuy doon te dañuy dundee na rab woowu di dundee te mën nañoo soppi rab bu taxaw waaye léeg-léeg su ko neexee léeg-léeg soxna bu ko neexee mun ma su ni ma sa place suba nangam moo fay xew te loolu su wuute wu dara dara ak doon nga mu doon ab douane moom di liggéey nekk aspect central de douane de douane bu ko defee daal xam naa ne daal man man ku jàngat wetu sëñ bi ci niñ ko jàngate ci mbind ak dundin weeg rapport yi mën a am ak doomu aadama ak yooyu waaye rapport bi mu am ak nature ak it ndax tubaab bi maanaam indi gi ñu ko indi fi sax ndax ñoo ko tey waaw bu ko defee ak ak yeneen nit yoo xam ne mi ngi feeñ ci biir ndax man gis naa koo xam ne fii la ñëwoon ab historien la tey historien boobu wax na ni. sëñ gi laay toog. asalaamaaleykum. waaw Baye Cheikh da nga dugg ci domaine boo xam ne wax naa la ko fii daaw lettre commandant Kosso boobu man dafa bokk ci li tax ma fii ñëw nee naa la dafa am lu may wër moo tax at bu jot ma ñëw. booba léegi maa ngi étudier lettre bi bari nañu ko xam man mal mal boo damay dafa bari li ñu ma koy wax ndax damay def colérage confrontation lan moo fi indi woon Serigne Touba eggoo ba ci biir commandant Cousteau li mu tàmbalee mooy j'ai perduit moo âme dans les eaux profonde de Mayomba nee na bi mu fi duggee rek moom la dee loola tàmbalee lettre am ndax lettre bi lettre njàqare la dafa jaaxle moo tax mu bind ko ndaxte bi mu fi génnee rek nee na moom dafa dee bi mu duggee ci ndox mi ci la dee moom mu wax lu am solo loo xam ni nee na wan nañ ko fi trésor boo xam ni xamal nañ ko nekkoon ne lii mooy xéewal yi des ci àdduna li doomu aadama yi war a dunde fii la ko suñu borom denc mu ne àdduna bi yëpp nag bu ñu xamoon dañuy def benn armée boo xam ne coalition lay doon réew mu ne participer ci ñu indi ay soldats protéger Gabon kon Serigne Touba lan la fi doon wut man loolay samay recherche loolu laay wër. sëñ Gilaay maanaam booy dugg dëkk bi montagne yi ngay gis. Ah. waaw moom la waaw sëñ Alaaji maanaam sëñ amado xam nga dañoo nekk ci dëkk boo xam ni maanaam Mamor. cartographie minière du Gabon mooy li nekk ci mbell yi nekk ci biir suufus Gabon biñ ko defee ba ñëw ba ñëw ci solu Mayumba bi dañu wax ni su sol bi gën a riche ci Afrique centrale mooy lii wër Mayumba waaye montagne yi chaîne de montagne la boo gisee oto bi di wër a ko wëndeelu daf montagne yooyu chaîne de montagne yu taqaloo la yoo xam ni dañ koo yett ngir ñun ñu mën cee jaar ñëw waaye chaîne de montagne yooyu mu ngi tudd le Mont Bamba montagne yi Bamba ah léegi nag Bamba moomu ndax du moom moo ñëw di seet si ay ay ay am ak ay yëfam ndax te loolu li may wax nii mi ngi ci livre cartographie minière du Gabon bu ko defee kon yaakaar naan daal ah waaw ah, hmm? ah, ah, ah waaw bi des ci kaw suuf. waaw mi ngi ci géeju Gabon ak àll. waaw. ba ba pare ba pare ba pare ba pare. bu ma sañoon lii ngay lii ngay di ah. dimbali ma ngir sëñ Tuubaa ñu déglu ko ñu déglu ko ba pare. waaw waaw. nanu ko sëñ bi waxal ci dama koy bañ a fàtte. waaw. waaw. ñaari baat yi may wax rek ci li sëñ Après son retour du Gabon, le commandant Jacques Cousteau aurait adressé lettre au pape Jean-Paul II après ses fouilles sur les côtes gabonaises. Cette lettre a été publiée en son par le magazine Femme et il y a quelques années, un. Il dit Je me rendis sur mon bateau pour explorer les mers du Gabon où je perdis mon âme. J'y découvert les sous les eaux de la mer du Gabon, les merveilles uniques au Puis, je vis un navire lourd dans les profondeurs des eaux de la mer du Gabon. Je visitais le navire chargé des biens et des ossements alors échoués au seuil de la mer inexplorée inconnue sëñ Mamour uh-huh. sëñ Mamour daa am baat muy le Gabon est béni mooy lan yàlla yàlla la na Gabon loolu mooy loolu léegi léegi sëñ kii dafa am bi ngay wax nii dama ne mbir mi amul hasard dafa am lu sama xel dem dafa am benn mbokk mu baax ca Touba am bis may waxtaan mu mën na ko sëriñ bi ñun ñun taalibe Sëñ Tuubaa yi nu ñu war a participer ci yeesal gi ñu war a yeesal xam naa sax ba lam may wax dana moom waaye nag man si na ko wax ndax dana man de gént moom mu ne gént na sëriñ bi mu ne ko beesal gi de wax na ma yu bari beesal gi waaye ña yii na ci jiitu bu njëkk bi mooy ni ñi jàngalee nañ ko beesalaat le système pédagogique nii la sëriñ bi jëfandikoo baat bi le système euh, la rénovation du système pédagogique baat bii la jëfandikoo ndax ñun ñëpp xam nañu ne sëriñ bi beesal njàng moom moo ko njëkke waaye ñun ba nii wóyaluñ ko ñëw da nga ñëw indi sa téer rek ñu lay tëralal waaye ki nga xam ne weesu waaye ki nga xam ne weesu na jàng bu masaa ñëw ci sëriñ bi njaareem da koy tombal di wax muy dégg pour quoi ñuy def langue muy barrière linguistique ci xam diine wala xam lu baax loolu ñun kenn ñu ko jàngal war nañoo proposer monde bi système pédagogique bu particulier boo xam ñëpp dañu ciy roy ñun ñoo war a xintewoo fi ni ñu def loo xam ne ni ñëpp dañ ciy sukkandikoo pour mën a dem ñaareel bi nga xam ne nag moom tax ma ne hasard mooy bi ngay wax ne war nañoo gëstu beneen côté kooka la ma ca tegal mooy sëriñ bi dane ko nit ñi sëriñ bi da ko cee tegal ne ko ni ñuy waxtaane nañ ko soppi di wax waxtaan woo xam ne nii day mën a indi sujet yu ñu gën a mën a gëstu barke sëriñ Tuubaa nii la ma ko nettali ni ñuy waxtaane nañ ko soppi di indi waxtaan yoo xam ne ni day mën a ubbi ay bunti gëstu te man lii boo ko waxutoon du ma xam ne lii war naa ci mën a gëstu te kii li wax commande ko so ci fin bi dane maa ngi wax Pape Jean Paul II <laughs> hasard bi ci am xamu leen ko sax mu protéger Gabon est-ce que amutoon ñu ay catholiques yu koy protéger ñooñu ko mujj jox de pourquoi ñu jox ñu ko tey ci biir sëñ bi amee téeméeri at pourquoi ñu jox ñu ko est-ce que xam nañu tax ñu jox ñu ko te Serigne Touba da ne wali xaada ahbaban bihim usir nuska suñ borom jox na ma ay soppe yoo xam ne nii li ma bëgg a feeñal ci ñoom laa koy feeñal buñ jàpp ne ñeneen la ñu dul ñun ñii ñun ñii la akrim bihi rabba li yashhad bi kawni abda man yaghfiru dhanba wa kawni xadimal Mustafa baxra maa yomba xam nga foofu la tàmbalee xam loolu moom sëñ bi xal baxal nga xam ne sëñ moom géej gi lay waxal ne ko na nga gëm yàlla te xam na yàlla kenn la du ñaar du ñett waaw suñu borom ëppante naag ñu koy ñu koy ñu koy lim ayaa baxru waxid laa tusallis fa rabbuna taala an tasliisi akrim bihi rabba xam nga loolu gën a waa ji nee na ngéeju ngëm la loolu moom am na am na laaleeg loola moo tax nag li sëñ bi wax desee ngeen gëstu yu bare bare man maa ngi seetlu hmm? waaw maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi seetlu ne xam nga boo gisee jàkkam jooji fii lañ ko yàqe woon te bi bi ñu ko yàqee ki ko doon xulool muy yëlli di xuloog waa ji sëñ bi nee na tisbaar ba takkusaan boog ba timis xam nga ci diggante bi nee na moom ci la tàmbali di way xasiid ak raditu anil mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani fa akrim bihi rabba xam nga ci biir dafa xam ne wajal bihi masjidi rahba mooy yàlla nga def sama jàkk ji mu yaatu lool xam nga baat boobu moom firee noonu ko doon ba gisagut bañ leen mayagut fii moom suuf si moom dañ ko daa firee tuuba ak Njaareem sëñ Mat Lam Jóob daga na firi na ko waaye jàll wasjal bihi masjidi raxbaa moom loolu xam nga mooy sama jàkka ji na yaatu yàlla na mu ko def lu yaatu xam nga moom teg nañ xeer bi tey te jàpp naa ne moom naa ne danañ mas a maam xaw ma xaw ma ku koy fekk xaw ma ku koy fekk waaye nit dana ma sa ñëw dugg ci jàkka ji yaatu yaakaar naa ci bëri daaw lu ma ci euh, lim doon wax ni moom laa bëggoon a wax mu wax ko bi mu ko waxee tamit laneen feeñu ma ci sëñ Ahmadou bi ñuy jóg nii së sëñ Ahmadou bi muy jóg ñuy dem ci église bi am na lu mu doon wax naa man de li ma xaw a jaaxal mooy évêque bi daal moom enfant de Dieu rek la doon wax enfant de Dieu ñun nee na ñun ñooy doomi yàlla te sëñ Tuubaa looloo ko gënoon na naqari waaye bayit yi nga wax xam nga lu ñu ci mën a jànge mooy sëñ Tuubaa dafa am lu ñu naan trinité trinité mooy ñoom ni ñuy def yàlla doom ji xel mu sell mi nii la def wane na yàlla du kenn ñett la sëñ Tuubaa nag bi mu jàkkaarloo géej gi da koo bëgg wax ne loolu bëggatu ko ma ko fi bëggatuma dégg ngay ngay def trinité kon nga xam ne fii da dana dana dana mujj ñun dong nga fii ne <laughs> ah lu mu ko wax sëñ Ahmadu xoola xoola lu ko wax lishad bi kaw nii abda man yaxfiru zanba wa kaw nii xadiimal Mustafa bahrama yomba yow géeju maa yomba gi na nga seede ne man jaamu bi yàlla laa bu mu nangu njaam di sax ci liggéeyal yoonante bi mu tekki lan walishad bi anni laa udaahinu mushrikan xalilan xabiban lilladi karramal janba na nanga seere nag doo maslaa ku bokkaale mukk Sëriñ Tuubaa ku saxoon ci principe la lu nit mën a rëy rëy lu xumb xumb principe am moom da ngay xam ne garde na ko ñoom ñii boo naroon a transgresser seen benn principe ñu war na ko ci sax ne la du nii ñun moom maslaa ci loo xam ne nii mooy principe suñ suñ Sëriñ Tuubaa waruñ koo def ci kanamu kenn ngir bëgg àdduna walla ngir njariñ loolu la ko wax mu ne ko na nga seede yow géej ju maa yombal ne man du ma maslaag mukk ku bokkaale man daal lenn laa xaritu xaritub yàlla di soppe bi yonente bi sallallahu alayhi mi nga xam ne lépp lu bokk ci man moo ko teral lu mu ca teg ayaa baxru waxit laatu sallis bëggatuma fee dégg trinité yàlla ñett la bëggatuma ko fee dégg wéetalal yàlla yow géej gi pour yow géej gi rek lay waxal ñi fi nekkoon di ko def moo tax ñuy waxal la leen fi jële da ngeen ko xam lu mu ca teg taala ani taslisi akrim bihi rabba mu ne ko fakkun zattiraabin musbidan min maxaafatin mën ngaa baj baji de waaye nag sa duusu gii ngay duusu dalal ngir lan ngir ragal yàlla kon commandant Costaud bu ne géeju ngëm Sëriñ Tuubaa waxoon na ko yow géej li ma la digal mooy dalal ngir ragal yàlla lii liñ ci mën a wax mënut a jeex maam sëñ Ahmadou ñu ngi jéeglu bu baax sëñ Baye Dame maanaam daf di maanaam mbo mboolem ci li ñuy wax liñ ci gën a ragal sax mooy xañ na wax mbirum gént waaw ci wet googu waaye nag am na ci yoo xam ni euh, defe naa xaasim mi ngi fi man dama gisul xaasim sax dafa am ko ku ñuy wax Mouhamed ci néeg bii la dëkkoon néeg bi suñ ginaaw la dëkkoon moom nag du waa Gabon bàyyam moo nekkoon ci biir dëkk bi di commerce bi bàyyam faatoo mu nekk ca Cameroun ci dëkk bu ñu naan ngaaw ndere mu nekk ca Cameroun dëkk bu ñu ngaaw ndere yéeg ni bàyyam commerçant bu mag la woon waaw kon waaw maanaam moom Mouhamed bon bi bàyyam faatoo fii ci ban ci montagne san ci wet gee ci maa ngi na montagne san maa yomb ci suñ ginaaw moom ma nga woon Cameroun ngaaw ndeere boo demee Cameroun soo jógee Yaoundé da ngay daw lu mat six cent et quelques kilomètres ca wetu Nigéria dëkk bu ñu naan ngaaw ngaaw ndeere foofu la nekk xaasim bi waaw waaw mooy mooy mooy mooy euh, Ali Ali le le jeune Camerounais Ali dama déggoon naa mu may seet xam na ma man lay wër maanaam kooku rakkam a ngi fi mu ngi ci kër ministre bi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi bâche yu fi nekk ministre boobu moo ko moom moom moo fi nekk moo fi ne moo ñu fi nekkal fi mu ne moom bi musaa demee ba dem gisatuñ ko moom moo wuutu musaa fii waaye ñoom ñaar bi nga xam ne yàlla dogal na kii bàyyam faatu fi muy ñëw di seet si bàyyam lu mu am ci alal bàyyam commerçant la woon bi mu ñëwee ci dëkk bi ci la gisee nag ak Moussa mi nekkoon fii musaa ne ko ci église làbbe yi dafa am société boo xam ne société forestière buy dagg bant la te waa réew mi kenn ñi mëwut a dugg ci église boo xamul ak di ko garde léegi nag man maa fa newoon te damay dem dama bëgg a wuutuma fa waaye li ci xaw a doy waar moom nee na fii benn fajar dañ ko doon wax dafa ñoo wax man a xaasim ne ni yow fekk nga ko de xanaa ah, bu fajaree balaa ngeen xëy fii fajar fekk dañoo luy ab oto mu indi ñu fii ñu fanaan fii balaa ngeen fee génn ah waaw waaw mu ne balaa ngeen fee génn am na lu ma war a wax ak yéen bi ci fajar gi bi muy wax ak ñun daf ñu ni mën daal daa am loo xam maa ngi dund ak moom fukki at ak ñett waaye dafa nuru waxi dof te amul kenn ku ma ko mën a waxal waaye yéen ñi may ñëw tëdd ci fu la ndem fii xaw ma te dab damaa yaakaar ni yéen ay dof génn ni man ma war a mën a wax ak yéen mu ne man dama doon dund ci dëkk bi naan ngaaw ndere booba fonkuma julli maanaam moom foofu la ko sëñ Tuubaa jàngale julli ci dëkk boobu ndax nee na dafa tëdd ci néeg bi mu tëdd mu jékki-jékki rek gis lu fàq ci kaw asamaan seeg di daanu ci suuf mel ni jant bi bi muy daanu bi mu nee ràcc ci suuf dafa am kàddu gu ni suñ borom a ngi ñëw maanaam fam fa fa loola daanu mooy seen jumaay ratib rek te foofa ñuy ñuy kàrt ak bëloon ñoo fa daan toog mu doon jumaa ji ñaareelu guddi gi beneen bu mel noonu fàqat di daanu bi mu nee tay suuf rek jëm Sëñ Tuubaa ñu tëll ci ci ci biir lool moom mu a xam Sëñ Tuubaa mos koo gis waaye nee na li ko ci gën a jaaxal mooy daal leer ba mel ni seetu boo xam moom jëmmi boppam mi ngi ko gis yeeramu sëñ bi ma man a moom Muhammad nee na yàlla dogal na nag foofu la ko xëree xertale ci julli moom nag bi mu ñëwee fii mu ñuy def lu mel ni weccente place Moussa di dem moom. cameraman yi sax. déet non ngi màggal nag gars yi. wax leen jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Tuubaa baax. xam naa tuubal kilifa bu baax sëriñ sëñ Ahmad ku ma xam xam maak moom bu baax. que jéggalu waaye dafa mel ne eh, mbir mi mbirum sëriñ bi ci lu leer bi Galaye di jël kàddu di wax eh, bi nga tuddee commandant costaud damaa naroon a wër Galaye ne ko kaay wax waaye ma ànd ak dal sëriñ bi dogal ko waaw bi nga bi nga tuddee commandant costaud dama naroon a woo Galaye Galaye sama xarit la ça fait presque quinze ans yi ngi nii xamante ëpp na ko sax waaw sëñ bi dafa wax ne commandant costaud mi ngi doo ko dégg turam tey te yaakaar naa fi bari na fi ay ndaw yoo xamante ne bu ñu leen waxee ñu ngi koy doo ko dégg ñoom tamit wax nag maanaam njariñ li pour mu am njariñ dangay ngay seeti ka ko wax kan la damaa bëgg bu ñu jógee fii na ngeen dem xooli kan mooy costaud man ku seet sama ndaw man yàlla Sëriñ Tuubaa daa dogal ne man costaud moom yaakaar naa li ma am si sama ndaw li ma seetaan ci télé buñ ko xaajoon quatre vingt pour cent ya costaud laa seetaan dimanche soir waaw chaque jour euh, RTS daanaka benn documentaire am raw maa ko doon seetaan xaw ma lu tax ma ko doon seetaan waaye xam naa lii wa taxoon waaw kon bu ngeen jógee fii na ngeen seeti ki waxee ki doon wax kiñ moo wax yi wax yi kan la ngeen ngeen mën a xam li mu doon wax lan la parce que suñ ko junjee noonu rek du kenn du ko xam na ko ñëpp dem seeti loolu day dugg ci ci li sëñ euh, sëñ daam bay daam bay wax ne nañu nañuy wax lu tax nit ñi di gëstu lii nii ñu def nii moo indi nit ñi di gëstu buntu seet gëstu boobu euh, dugg na waaye man foofu damay fay jaare poser leen question wala laaj loo xam ne dañ koy yóbbaale du fi xaj mooy loolu Sëriñ Tuubaa wax jëm ci yenent bi est-ce que du ngeen ko xoolit moo am sens propre ak sens figuré ci yaa ahla barri yaa ahla bahri xoojoo li barri bahri saxaaya ku ko jël ci sësale ko wax jooju costaud wax est-ce que duñ am lu ñu xaw a ah, ah? Ah? ma li nga wax nii toogal toogal sëñ bi xam nga yaa ahla barri yaa ahla bahri on jooli barri bahri saxaay sëriñ tubaa yàlla dafa barkeel mbindam ba sens bu ne danga ko ci mën a jël te du yàq ci lam bëgg dara sëñ ahmadu yaa ma gën a xam tawriye xoqal bu kaw def na ca tawriye saxaaba yi day mel ne lay waxal waaye moom ci boppam ak ñim yar mënu koo def directement waaye day def tawriya mooy ngay wax ak sëñ Maam Moor dara ñu naan sëñ Maam Moor ngay wax te fekk la ne nga bëggoon wax loolu mën na caa am ndax moo jooli bari bari saxaay jàdd leen ci ku baax kii di yonente bi nga xam ne mooy géejug taw tab waaye léegi gabon du jéeri ak géej goo xam ne loo ne mi ngi fi amu fi maa yomb géejug tab la te gabon gi jéeri la jéeri yoo xam dafa dend ak géej kon li mu doon wax ne liñ bëgg lépp nañ ko am sama tukki bi ci géej gi la ko waxe kon pourquoi pas ñu explorer géej gi li nga wax nag dafa am solo lool fi ne nii day mel ne Sëñ li mu bëggoon léegi ñuy waxtaan waxtaan yoo xam day ubbi bañ a gëstu mi ngi am ndax commandant costaud mii mi wax wax ji bu jàpp ne seen n'importe qui commandant costaud léegi nag lii nag bu ma ko waxee du ma waxaat ndax lii ku ko topp xamut kuñ fu mu jëm xam nga li may waxaat lan la te nag duma ci def benn commentaire mooy li sëñ Xaasim wax dane dafa gént sëriñ tubaa dafa gént genn kàddu mu ne ndax gis ngeen sëñ Touba ñépp na teg mu ne bu ngeen ko bëggee ni gis da ngeen di déconnecté seen portaable yi ndax moom moo am connexion baax na lool ñu firi ko bu suñ kilifa toog ñu bàyyi portable gàtt na ci xam nga loolu mooy lan lii liggéey liggéey bu rëy la ngir mu réussir ngir ngeen dajeeg sëñ tubaa gis ko lu ngeen war a def mooy kum man di doon ngeen jël ko teg teg sëñ tubaa seen kanam xam nga loolu koy dëggal sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh naa mi wax naa ne ko léegi bi ñu nekkee fii li tax ñu taat dañ doon nelaw bi may nelaw damaa gént évêque bi nii muy wax ak mbub mii ma soloon am ku tudd ab sëriñ bu rëy ci yoonu mu mu ne bàyyi leen ma kooku man sëñ Tuubaa laa bëgg ñu wax ci ngeen teg ko suñ kanam moo tax bi mu waxee lii ma ne lii mënta nekk hasard man maa jàpp ne ñun lii wax ni ndax man lii mosuma xalaat ne daa ko day mel ne sëñ Tuubaa moo koy def suñ xel jataay bi moom lu jataay li toll nii ñëw di ko feeñal tey di téeméer at Serigne Touba mi ngi ñuy gunge lu waaye am ci aajo na ko fas teewlu màggam ngi ne mi ngi ci biir suñ borom mën na koo koo fajal ci barkeem man wóor na ma ne ëmma daraje man koo gis xëy na waaye nag maa ngi koy dund sama xol xam naa ne fii moom mi ngi fi ak ñun waaw ndax fii fii la moo ko ëppal lépp di nee na sama liggéey bii ma liggéey Gabon moom la suñ borom di jël di ko teg ci kanamu yonente yi naan leen am naa ku ngeen amul démb rek liggéey bii mu liggéey gaboo gi ci géeju Maayomba gi ak ñaari at yi ci tege nee na moom la suñu boroom jël di ko teg bu doonoon palaat teg ko ci ne yonente yi yéen ñu baax ñi am naa ku ngeen amul ku liggéey liggéey bu sell bu ñàkk ngisal ku bari jom lool bëri yërmande lool fees dell ak njariñ muñ nattu yépp lu ëpp ñaar téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ngir yéen ñëpp ngeen jariñ ka ko liggéey fii la ko liggéey kon nag nañ teebluwaat jëmmi sëriñ bi te lépp luñ jàpp ne mën naa gàllankoor ab liggéey muy àdduna ñu jël ko teg fale lii sëñ Ahmad doon wax damaa dem ba ba koy wax mu wax ko muy loolu dañ koo war di nettali lu bari nee na sëriñ bi nee na bis àdduna da ko doon dàq ba ci yàgg suñu boroom ne ko xif taxawal àdduna wër ma ndomba suñ borom ne mag ku ku bëtt àdduna mii du la mos da gis koo xam ne ni day tàmbalee waxtaan ci sëriñ bi ndax sëriñ bi ak mbaax rek la àdduna jublu ko foofa nag la tàmbalee bu bëttee ñooñu ñu bañ koo gàllankoor mu xam ne lii moom fawu barke buy ñëw lu baax ak lu bon léppay ànd boo jëlee lu bon la teg na le mu tàqale ko yow ba faaw ngay jàng xasida fawu nit ñi di la bëgg àdduna li kenn ko ne la may lu ne foofa nag nga tàmbalee boo ko bëttee faaw nga mos sëriñ bi yëf yi nag tàmbali naa feeñ nañ bëtt àdduna teg sëriñ bi suñ kanam te lépp ñu bàyyi ko lépp ñu fexe daal ba sëriñ bi rek ñu teg ko suñu kanam fas yéene koo liggéeyal du ma ci waxaat nag ngir yàlla. may ma may ma tuuti rek. waaw ñëwal waaw. loo xam ne <laughs> ci ku gàtt gis-gis. waaye ñi nekk Gabon ci waxuma ci waaye ñenn ci ñu bari lu la ci wax seen diggante si lu ñu leen woon ci génn mbaa jaaxal lu gis te am na ñoo xam ne mënuñoo wax lu doy waar fi ne lu sensible jotaay bii daa bëgg lii dafa am lu ma loo xam ne lu ma ko gisoon lu bari waxoon ko ak soxna jaar bu soog bi génn àdduna te kenn du ko kenn du ko wax lu am yaakaar naa am na ñeneen ko <laughs> loolu moo di katte léegi dafa am rek lu ma bëgg leeral kii daf maa cuqu man costaud laa gëstu bi may nekk xale laa ko doon gëstu costaud marin la mi ngi génne légionnaire bu France mais bi muy def marine ba war a libérer armée comme da daan plongé ci la daan gis ay xor yu rafet ci géej gi mu fexe bañ defar ko ay appareil yu sophistiqué mu mën di photo xor yooyu di ko def ay tableau di génn di ko jaay ci foir yi mujj gi jaayatul mais day xool ne géej am na lu ci ne nee na dem na ba ci ñaari géej yooyu yàlla wax ci alxuraan maarajal baare yi nee na foofu bi mu fa duggee dem na ba amatul connexion sëñ Ahmadou yaa ngi dégg mais nee na foofa yàlla da koo defal jun dund jën jën bu nekkee ci ndox li tax mu mën cee dund jën jën du buy noyyi buy noyyi du xëcc day sànni Cousteau nee na yàlla da koo defal foofu moom muy muy sànni mais du xëcc def na ci géej gi lu mag ñetti fan foofu la dégg nodd waaye loolu yépp ki ne woon fii rek la dafa mujj tuub dafa mujj tuub bi mu koy nettali sax dafa toog ci boo seetloo yow bu dee seetaan nga yépp dafa toog ci genn bato bi dal di ne ma j'ai un temps ayala salaa ayala falaa léegi nag moom bi mu demee Égypte teer ak bato ci la dégg noddu ñu noddu ci jumaa benn jumaa Égypte mu ne kon lii dëgg la commandant Cousteau dimanche soir ku xamoon RTS doo ko doo ko fàtte sami ali ma sha allah la hawla wala quwwata illa billahi al ali azim ñoo ngi yëg suñu kàddu muy kàddu rek cant di ko yëkkati ci li suñ seex meng doon wax sànq sëriñ Fàllu ñaari njaboot la nga am njabootu ko ruux ak njabootu deret mooy ñim àndaloon doon liggéey sëriñ Tuubaa dañ bokk toog nii su ma tuddee suñ seex mel ne tudd naa ñëpp ñooy yëkkati ay kàddu cant di ko jëme ci suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon def waxtaan wi léegi muy sëriñ Baye Ndambay ak si Amadou Mbacké muy waxtaan bu am solo waxtaan bu am njariñ waxtaan bu tegu ci xam-xam lool ñu waajaloon thème bu yaatu waaye ñu gis na rek waxtaan wi ak ma xataay wi tax na lañ ci bëggoon lépp sax indiwuñ ko waaye mel neen lañ indi fees na ay njariñ kese la di ñaan yàlla suñu boroom yokk seen xam-xam yokk seen wér leeral seen làmmiñ ba fi ngeen bëgg a àggale liggéeyal seen Tuubaa ngeen àggale ko te am seen ngërëm noonu la ñu sant itam mbokki taalib yi nga xam ne ñoo toog ci barab bi yépp waaye di sant sëriñ Basiiru Mbàkke mi nga xam ne moom la fi sëriñ bi yabal ànd kook sëriñ Muhammadan Mbàkke ñu gis ne boobu ba léegi ñi nga ànd ak ñun liggéey bi ak jataay bi di gëstoo ko xeeñtu rek ngir liggéey bi mën a jëm fa di sant ak gërëm sëñ Moustapha Bousso mi suñu wet di suñu mag sëñ Munaar Bousso yabal ko di xale bi sëñ Aliou mag suñu sëñ Fàllilu waa ànd ak waa Bousso bi yëpp ñoo leen di amee cant bu baax a baax di ñaan mu jot li cant googu ci sëriñ bi sëriñ Fàllilu Mbàkke moom Baye Touba Mbàkke bokk ci waa xidma di ci liggéey liggéey boo am solo ay taxawaay yu am solo moom it mi ngi nii teew ci jataay bi ñoo koy sant bu baax sëriñ Baye Abdou Bousso di sëtu sëriñ Afia Bousso moom it mi ngi ci jataay bi soxna maam Issa Mbacké ahlu café soxna Musti Bousso waaye sëriñ Cheikh Mati lay Mbacké moom sëriñ Abdou Nasir Baara Mbacké moom it mi ngi fi kon ñii di ay kilifa yoo xam ne bàyyi nañ seen yitte yépp bàyyi lépp ngir ñëw fii ànd ak ñun ci liggéey bi ñoo leen di sant di leen gërëm di ñaan ngeen am ci ngërëm sëñ bi soxna Astu Gaawaan Mbàkke itam ñoo koy sant bu baax noonu lañu jàllee di sant ñi nga xam ne ñooy waa ahlu xasida ñëpp su ma tuddee suñu boole mbay mii toog dana man a yóbbaaleel mbooleem ñi fi toog ñëpp di yëngu ci xasida waaye tamit ak mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne jóge nañ senegal yëpp ñëw ci liggéey bi nii ak presse bi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp sëñ Mamour mi ngi nii sëñ Moutala Gaye ak sëñ Xarim Seck ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ànd ak ñun <coughs> ak Mayumba TV ñoom ñëpp di ay yoo xam ne yàgg nañoo ànd ak ñun ci liggéey bi kon loolu ak cant ak ñaan war na ci ñoom jëme ju baax waaye nag di beral cant bu baax waa rabita bi nga xam ne ñoo nekk Touba te sëñ xaban Mbàkke moom sëñ Mahamadou Fadal jiite ko bi liggéey bi jubsee ñu woo sëñ Xaadim Ture ñoom jàng nañ ci ay kaamil limu Touba muy ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ngir lan wàccaaye ko liggéey bi ñaan ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm waaye ñu am ngërëma Sëñ Tuubaa ci liggéey bi ñaan liggéey bi àgg kon alxuraan moo ko ubbi ak xasida waaye ku mën a Sëñ Aafiya Buso sëñ Seexuna Buso mu sëñ Siidi ak sëñ Mustafaa ñoom it jàng nañ ci ay kaamil mat juróom-ñaar ñu boole ko limu kaamil yëpp mi ngi nekk fanweeri kaamil ak juróom-ñaar kon loolu ñu boole ko xasida sëriñ Ato sëñ Yuusuf eh, ñoo ñaan yàlla yërëm ko te xaaral ko àjjana waaye sëñ Yuusufa Jóob moom it ñu sàkkoon ci moom limu xasida yu bari ngir boole ko limu alxuraan yooyee ngir mën a ko gunge liggéey bi ak mbooleem mbokk taalibe yu bari yoo xam ne ñu ngi yëngu ci xasida ñu amul ay lim yu baree bari yoo xam ne mënuñu ko lim kon loolu moo jiitu ci liggéey bi ngir mu nekk ab laytaay boo xam ne yàlla nangu na ñaan yooyu ndax mel na ne jataay bi barkeel na te itam fekk nañ fi tamit lu kawe njort di sant itam bu baax a baax ma lim ko ci lu gàtt kilifa yi nga xam ne yàlla def nañu demoon ci ñoom doon leen leeral liggéey bi ànd koog mbokk taali yi toog ñu demoon Touba tàmbalee ko ci Mahamadul Muntaxa leeral liggéey bi ñoom ñëpp ci ay kàddu soññee kàddu yoo xam ne xëy nañu bari dégg nañ kàddu yi waaye tamit yëmuñ ca loola waaye mbooleem ñoom ñëpp dagg nañ carte membre boo xam ne wane ne liggéey bii ñi ngi ci ànd ñi ngi ci bokk ñi ngi ci ñi ngi ci kanam xëy na kon diggante waxtu bi ci ay minute yu néew ñu jaar ci seeni tur ngir sant leen gërëm leen waaye ci kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko yëkkati ko mbooleem murid yépp muy kàddu yu soññee ak ñaan yoo xam ne ñaan yooyu nag mel na ne suñu borom nangu na ko ndax yombal na lu bari ci liggéey bi ak yàlla def li ñu fekk fii tey mu xéwale lool muy barab bii ñu barab bi nga xam ne yàgg nañu ko sàkku di ko ñaan di ba suñu borom tey jàppandi lépp muy barab boo xam ne lenn rek moo fay am muy tasaare njàngale Sëriñ Tuubaa waaye jàngale diine fexe ba ñi fi nekk ci dëkk bi man cee gis seen bopp bu baax a baax dinaa tàmbalee ci kilifa yooyu sëñ Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan yàlla suñu borom yàgg loolu te wéral ko sëñ ma sëñ Bachir Mbacké di yor kàddoom sëñ Ahmadou Mbacké moom sëñ sëñ Ahmadou Moutala xalifa sëñ Mouhamadul Moustapha sëriñ Sidi Mbacké moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacké sëriñ Daam Mbacké ñu gën koo ci min sëñ daam atta mu sëñ ibrahim sëriñ abou mbàkke xalifa sëriñ mahamadou fadal sëriñ seex saalihu mbàkke xalifa sëriñ saalih sëriñ seex saynabu mbàkke sëriñ seex say mbàkke xalifa sëriñ chouaïbou sëriñ mudu mbàkke habib sëriñ mudu habib xalifa sëriñ abdouraham sëriñ mudu borom tarbi sëriñ maam mooro mbàkke xalifa sëriñ mahamadou murtada sëriñ Cheikh Mbacke Abdoul Khadar sëriñ Hamsatu Mbacke Abdoul Ahad sëriñ Mouhamadan Mbacke Abdoul Ahad sëriñ Abdou Samad Mbacke moom suñu Chouaïbou moom it euh, mu boole ci asamadiya wax ne lépp loo xam ne ñu ngi ko def liggéey bi dinañ ko ci jàllale taxaw ci taxawaay yu am solo waaye tamit moom it joxe woon carte membre boo xam ne da ko daggoon ngir murid yëpp ne daggal naa ko murid yëpp moom it ñoo ngi ci euh, sant ci euh, assemblée bi nga xam ne léegi joxe na ko ngir ñu mën cee jàllale mbir information sëriñ Abdul Karim Mbakke moom sëriñ Mahamadou Fadal sëriñ Ahmadou Mbakke Badawi moom sëriñ Mahamadou Fadal sëriñ Habibou Mbacke moom sëriñ Mahamadou Fadal bàyyi sëriñ Bousso xalifa sëriñ Bousso be sëriñ Mahamadou Naar Bousso xalifa sëriñ Aliou sëriñ Mudu Mbend Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Hamdi Bousso moom sëriñ Omar sëriñ Bachirou Mbacke ñu gën ko min si sëriñ Bachirou Antañam xalifa borom Daaru Muxti sëriñ Ismaïla Mbacke xalifa maam Modou Diarra Mbacke sëriñ Modou Mamoun Bousso di imaam ci euh, Touba kon ñii ñëpp ma lim dem nañ ci ñoom seete leen ñu seeni kàddu waaye ñu wut ay carte membre yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi ko doon def ngir barkeelu bind ci ngir liggéey bi man jëm ci kanam kon loolu dana jaadu ñu man ko leeral ñi nga xam ne ñoo ñuy diglu te xam ne liggéey bi ñoom ñu ci jiitu te ànd ak ñun ci liggéey bi mu nekk na liggéey bu yaatu boo xam ne xëy na sax xataayu waxtu yi moo tax ba yëmu ci ñu ci bari dese nañ ba bi ma ñëw rek fii lañ ma woo waa Kër Masamba xalif bi ngir ñu ñëwoon waaye fekk ñu fi ñu nekkoon Gabon kon ñu nga leen di ameel ak tant ak ay ngërëm ak ay ñaan di ñaan suñu borom barkeel liggéey bi waaye te barkeel njaboot gi nga xam ne seen yitte du dara lu may liggéey bi jëm kanam rek ñoom ñëpp ñoo leen di sant di leen ci gërëm di ñaan yàlla suñu boroom def ñu ñu yàgg ko def yàgg ko teewee teewal ñu daje seen kër ma sëñ liggéey la boo xam ne ku ko sellal rek di ci làmmu yàlla ak sëriñ bi foo jaar dam jàmm te rafet na jot lool di jégg lu baax ci kàddu yi ndax xam naa ne guddi na te itam ñi nga xam ne war nañoo yëkkati ay kàddu bari na waaye tamit waa lañ asaxaafiya bi nga xam ne sëñ euh, Fallou Bousso Tamba moo ko jiite di ci coordonné nekk fi ak ñoom sëñ Fallou Diouf ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, sëñ Alxaaji be sëñ Maas Guèye ñu am ci ay taxawaay yoo am solo yoo xam ne lu ci euh, bari ci liggéey bi ci seen loxo la jaar ci wàllu euh, lañaar saxaafiya bi ñoom it ñoo leen di jaajëfal bu baax a baax di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa neex waaye nañ considéré daal ne site bi ñoo ko moom euh, site boobu nag jotoon ak site bii daal ndax bii xanaa saa si lañ moomagul waaye nekk bu dee li ñuy def fii yëpp boobu ba léegi fii lañ koy def ci ci suñ joobale lañ ko fiy defee kon jàpp naa ni euh, loolu lu mën lu sotti ba noppi la euh, kon daal ñu ngi jégalu bu baax a baax di wax ni liggéey bi yaakaar naa ni. bëgg nañoo def ay taxawaay yoo xam ne dina fexe ba fépp foo xam ne ab murid nekk na fa ñun ñii niñ ko déggee tey ñu jotale la ca loolu loolu waxtaan nañ ci tënk ak ñoom sëñ Mamour Baye ñeneen yoo xam ne dinañ seet bépp moyen de communication buñ mën a utiliser ngir murid def ci seen seen barkeelu ñu def ko ba semb bi rëy na jafe na ndax fii euh, boo jëndoon ay matériel ci ligne bi bëgg koo jël andi ko fi sax gis nañ distance waaw sori na waaw kon indi fi dara jafe na te Gabon nekk bi jafee liggéey la ndax benn benn benn saar suuf suuf bokkul ak suuf Sénégal fii amul suuf saar suuf suuf cent dix mille francs lay lay jar wala léeg-léeg mu ëpp ko day yéeg nga wàcc fii réew mi amul suuf. ci géej waaw ci géej gi la ñuy dem di tibb suuf si di ko génne wala ci dex yi wala ci ay riz wala yooyu waaye suuf boo xam na ngay dem tibb ko fenn amul Gabon bu ko defee nag loolu kon ñu xam ni. lu diis la waaye nag sëñ Tuubaa lépp woyof nañ ci moom waaw kon kon daal loolu lañ bëggoon a jël kàddu daanele ko ñu ngi jégalu ñëpp xam naa bu ñu kilifa yi ñaanale ndax daa mel ni dañoo mën a ta teel a tàmbali nag di di di passé yëpp ngir lu ci ne ñu mën a waajal delloo ko balaa ñu mën a xëy incha allah waaw ñu